salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax di janoo ak yéen saa su nekk di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun di 24 actu ñu leen di dalalaat ci seen beneen émission seen entretien tey nag ñu dafa seen cee ki nga xamante ni moo di sëñ Moussa Diop Nasrou moom nag mu yëngu lool ci wàllum ñaan am xam-xam lool macha allah réew mi yëpp daal di koy xam ci wàllum ñaan ñu moom lañ daal di tey ci seen entretien ñu di koy bàyyi rek mu daal di nuyoo sëñ Moussa nuyu soxna Maguette maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa 24 actu ñëpp ak euh, mboolem ñi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di Moussa dégg nga léegi ni ma ko waxee ne naa yaa ngi yëngu ci wàllum ñaan dafa mel ne noonu la de. waaw noonu la waaw ñu ngi ciy yëngatu macha allah. Mhm. ñu bëggoon xam ci yan côté nga koy defee. Mhm. waaw côté yi ñu defee mooy ci wàllu sunguf ak ci wàllu xawaatim ak itam ci wàllu kurus ñett yooyu daal mooy yi nga xam ne dañ ciy yëngatu ci wàllu ñaan. Mhm. Moussa tey jii ku ñëwoon bëggoon a ñaanal da lay wax rek da koy seetal wala danga koy ñaanal noonu rek directement. waaw xam nga bu nit ki ñëwee rek day wax euh, soxlaam ndax moom mooy ki nga xam ne moo gën a xam boppam su waxee soxlaam ba noppi nag léegi yow ci ngay doog dem xooli ji ba xam nan nga ko war a ñaanale ak fan nga ko war a jaar ndaxte nit ñi dafa am ñoo xamante ne ni suñu borom subhanahu wa taala ni mu leen bindee sunguf moo leen mën a jariñ am ñoo xamante ne nii mbind moo leen mën a jariñ am ñoo xam ne kenn waru leen a jox sax lu ñuy yóbbu dañ leen war a ñaanal lool noonu rek ñu dem ndax suñu borom bi na may bind aadama yi dafa cof ci xeeti suuf yi fu nekk rek mu bind fa doomu aadama moo tax euh, doomu aadama yi seeni couleur wuute seeni melokaan wuute ñii tàng ñii sedd ñii nooy ñii lewet euh, comme ni mu ko defee noonu nag noonu la ko defee ci xeeti garab yi garab gu ci nekk rek dafa am doomu aadama boobu méngool comme doomu euh, garab yi niñ méngoo ak turu yàlla yi nga xam ne garab gu nekk am na turu yàlla wu jàpp ci juróom-ñeent fukki turu yàlla ak juróom-ñeent mm-hmm. ah, kon sunguf ak ak këyit yi bokkuñu ba tey ak reen yëpp bokkuñu lu ñuy faj waaw bokkuñu lu ñuy faj yenn saa yi tamit ñu bokk lu ñuy faj waaye dañoo bokkut ki ñuy faj maanaam ki ñuy faj lañ bokkut waaye ñoo bokkul li ñuy faj fi ne am na ay alxuraan yoo xam ne li ay alxuraan bi di faj lool la sunguf bi di faj waaye bokkuñu ki ñuy faj am na koo xam ne boo ko joxoon sunguf mu jariñ ko waaye boo ko joxoon alxuraan du ko jariñ hmm. des fois dañuy gis tamit ay jaaro yoo xam ci dañ naan ay ubbikaay la ay yu mel noonu ndax yooyu tamit yaa ngi ci yow ñu ngi ciy yëngutu waaye jaaro yi itam du pour ñëpp ndax am na koo xamante ne ni la muy wutee jaaro boo xam ne 200000 wala 300000 la koy jëlee pour takk xëy na génne woon benn tàngal joxe ko moo gënoon ci moom waaw xëy na tamit sangutu woon moo gënoon ci moom xëy na itam ñu téewoon kurus ñaanal ko ci moo gën ci moom moo tax nit ku nekk rek nekkul ne yaa naan jaaro bi laa bëgg wala nangam laa bëgg waaye ñun ñooy xool li gën ci li gën ci yow ñu defaral la ko waaw mu ngi mel ni tey fi mu ne boo demoon kër docteur nekkul ne yaa fay nekk naan Effergan laay naan wala wala nga paracétamol laay naan waaye ñoom ñooy xool garab bi nga xam ne yow ma ngoor na rek ñu bind la ko dépendrul ci garab gi nga bëgg yow sa jëm bopp mhm. mu mel ne jamono ji lu lu yàq lu nekk rab a ko yàq ñu bëri dañuy faj rab ndax sëñ musaa dina faj rab waa rab dañ koy faj dañ koy taxaleeg doomu aadama bi ndax euh, dafa doon loo xamante ne nii day dugg ci yaramu doomu aadama nekk ak moom su nekkee moom nag day sensé ay xalaatam maanaam xalaat yi mu waroon am da koy soppi ma jox la ci benn misaal comme tey bu fekkee góor la da gis góor goo xamante ne nii mbirum jigéen rek ci la ko rab di xiir nga xam ne am na ñoo dañuy masturbé wu mooy li olof di wax mballu dañuy mballu ba seen man yu génn ñu doog nekk ci jàmm nga ne bu ñu ko defee ba mu génn sax léegi dañuy julli jàpp jégguluwaat yàlla ni lii moom dootuma ko defati waaye suñ koy defaat duñ ko tey ndax borab bi duggee ci ñoom rek ñoom nekkatul ne ñoom ñooy def comme par exemple tey nit ki wéradi ki nga fekk ci mbalit mi muy lekk ay wettit kooku soo ko fajoon ba mu wér nga woon ko wettit yooyu ne ko yaa doon lekk lii danaan déedéet du man fekk waaw fekk rab moo koy def maam moom doonul woon moom ci boppam mooy lekk wettit yi ndax wettit yow boo ko lekkee sa xel day nga wàccu waaye waaye rab bi moom moo dugg ci moom di ko lekk mooy tax rab dugg ci góor di ko foloo muy foye boppam imma sax mu jiñ ko ci muy dem di fooye ñeneen ñoo xam ne tokkul leen wala dëgganuñ ci moom imma sax mu dem ba téye awraam nga xam ne moom dootul nekk góor day dem ba am soxna li mu waroon a man du ko man fekk na dafa yàgg a boppam naka noonu tamit lay duggee ci jigéen maanaam yenn saa yi rab dugg jigéen euh, def ko bopp buy metti wala mu def ko regle boo xam ne du normal Euh, noonu lay demee ba def ko loo xam ne comme saaru ngelaw yenn saa nga gis jën moom dañ naan moom daa mel daa ëmb ma dem yàgg biir bi wàccaat nga gis ko xam ne moom day ëmb dëggantaan waaye day ëmb ci diggante bi rab bi dikk yàq ko tuur ko am na ñoo xam sax far loolu jaar waaw tere ko am am ñoo xam lay teree am jëkkër maanaam loolu sax duñ ci jaar duñ jot a ëmb ba mu yàqu far dañuy duñ far am jëkkër ku ñëw wax ba nga yaakaar rek day delluwaat te doo xam lan moo koy delloo am na ñoo xam ne mën ngaa dem ba am jëkkër waaye rab bi moo ñëw fàdd ku góor ki moom nga gis jigéen ko am day tënj kenn tënj ñaar góor ñëpp di ko daw ne daa am gaaf fekk dafa am lu mu nekkal loo xam ne kooku jabar la ko jàppee comme jabar la ko jàppee nag ku ñëw bëgg koo xañ jabaram mu xeex ak yow bu la mënee rey la te lii xeex ak yow di la gis te yow gisoo ko loolu bu xeex ak yow da mën a gañe moo tax mbiru rab doon lu garaaw garaaw doonul loo xam ne nag ku jug mën koo faj ndax danga nga koy donn wa illaa nga jàng ko te boo ko jàngee te doonoo ko da ngay faj mu gi mu wàññeeku fàdd la wala mu wàññeeku fàdd sa njaboot moo tax ngay gis fajkatu dof boo xam ne boo demee këram fekk fa ay dof a parce que dafa ay dof rab yooyu noonu dugg soppilu ko dugg ci njabootam wala ñu dugg ci jëmmam sëriñ yu bëri nag aar nañ seen bopp ba loolu mun leen lool waaye mën naa lool seen soxna mën naa lool seen doom mën naa lool seen i sët ba seen i sëtaat sax da gis ko dof koo xam ne boo ko laajee moom ci boppam maamam dafa doon faj ay dof waaw du yomb fañ nag du yomb fañ ndax ki ñëw faw nga xam man rab moo ko jàpp ak rab bi moom lan lay laaj loo xam ne bu ñu ko defalee mu war a mën a dem nga xam ne da nga koy dàq dàqin woo xam ne ci teyug bakkanam nga koy dàqee waaye boo ko dàqee par force day génn ci waa ji rek mën naa mu génn par force mais mën naa pare duggaat ci mbokk nit ki nga ko génneel wala mu dugg yow ci sa jëm bopp say mbokk moo tax muy lu garaaw garaaw garaaw. Moussa nan lay fajee rab moom day sangaay la lay jox wala lu mu koy waaw am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañ leen di yóbbu ci wanag wi ñu sangu dem ñibbi mu tàqale ko ak ñoom am na ñoom bu ñu ñëwee dañu leen di jox garab ñu koy jëfandikoo ba keroog muy tàqalikoo ak ñoom am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañu leen wax ñu dem ñu jël seen tur bu ko defee di leen liggéeyal di leen ba woote ñu tàqalikoo ak ñoom am na ñu nekk bitim réew ñoo xam ne waaw euh, yenn saay yi nag rab euh, bàyyi nit mu bàyyi la mu doon def mu dikkaat moo tax yenn saa yi bu nit ñëwee duñ ko wax ne ko jëlal liy yóbbu waaye dañ naa ko jëlal nga toog fii ci kër gi nga jëfandikoo fi doo ko dem ndax yenn saa nga jox nit dara benn biteel ne ko juróom-ñaari fan la mu def ko ñetti fan li mu doon gis gisatu ko mu bàyyi ko rab bi day dem rek quelque temps mu dellusiwaat duggaat ci yaram wi moo tax yenn saa yi am na ñoo xam dañuy sori nekk euh, bitim réew wala ñu nekk feneen dañuy nekk foofu ñun ñu nekk fii ñu ñaanal leen ba keroog muy dañ ñu wax leen sarax yi ñu war a génn ñu def ko mu ndax loolu moo gën a gaaw ndax nit ku ñuul mënul topp traitement ñaare bu tàmbalee gis tànn rek day bàyyi. Hmm. sëñ Moussa ñu daal di laal tuuti actualité gis nañ ne jamono ji acti activité yu bëri dañoo daal di dagg ndax mbas moomu dugg ci réew ñu naan ko coronavirus naka ngeen koy dundee jamono ji ak ci li ngay yëngu. waaw ni ñu koy dundee mooy euh, ndaka jekk ñun dañoo yàgg di ñaan ci wàllu kurus maanaam man yaakaaruma ni nit ki dalaa war a jege ngir nga dog ko mën a jariñ ndax tey euh, lii ñuy jëfal ñu ñuy jëflanteek nit ñi rek wane na ko ndax tey da yor micro boo xamante ne nii digganteem ak fa wax ja dem amul benn fil bu dox ci diggante bi te day jàll ndax loolu kimtaanu suñu borom la yàlla tamit dana wax yu doomu aadama bi wax yu boo xam ne du ne day ñëw ci moom wala moom mu mas a gis yàlla boo jàkkaarloo boo ko ana yàlla moog yow ci yam ba ne ko ndax mas ngaa gis yàlla naan déedéet te pourtant moom bu gisul yàlla tamit dégg na yàlla maanaam yàlla jokkoo na ak moom ndax bi nga ganee àdduna rek ci saase dañ laa jox ween nga muucu kan moo la wax nga muucu jamono boobu amoo dégg goo wax sa nopp fettagul say bët fettagul waaye dañ lay jox ween rek nga tàmbalee muucu ci saase naka noonu gunóor bi ñuy wax wanq day jàkkaarloog gerte di ko xool di ko xool ba nga yëngal gerte bi fekk ko mu jeex tàkk fekk am na lu mu def ci gerte bi te laaloo ko Euh, doomu aadama bi gën a yées ci doomu aadama mooy ki xam dafa jàpp ne ku la ku nekkut ak yow rek mënu laa jëriñ kooku suñu borom si boom sax la njëkk a wedde ndax suñu borom wax yu ne ab yonentam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu te gisantiwut ak moom ginnaaw bi la ko doog wax yu mooy subhaanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haraam loolu am ci weeru Kazu Rajab kon euh, ñun dañ doon ñaan ci kurus avant léegi bu ñu demee ba lu mel nii am tamit dañuy continuer doomu aadama bi li soxla ci moom rek mooy xam turam xam turu ndeyam xam turu baayam lañ bëgg def ci moom lépp mën nañ ko def ci moom fi ne kort maanaam euh, sànni nit korte tey mu mel ni guy di néwi wala mu jékki-jékki am ay taab di toj li ñuy wax fittu saalum loolu fi mu ne mën nga koo def nit koo xam ne fa gën a sori ci àdduna bi la nekk waaw li ñuy wax fittu saalum fi mu ne gunóor la boo xam ne waxtu timis lay jékki-jékki naaw rek ne tar rek dal ci sa kaw teggee ko yaram wi tàmbali di sensé dindi wi di futti di toj di futti di toj ba doomu aadama bi jaare fa wuy ji borom bu koo mën a faj te loolu ka ko def ma nga fa mu nekk gunóor bi rek la yebal waaw ka ko def ma nga fa mu nekk waaye gunóor bi la yebal ñu ngi koy def ci gunóor yi nga xamante ne nii day jékki-jékki rek fi ne boo taaloon làmp am na gunóor yoo xam ne waaye yenn période da lay génn am na période du génn day jékki-jékki rek naaw rek dal ci tabax daal di day xaru am na gunóor yoo xam ne fi ne rek na fërul rek dal ci dara rek daal di daanu dee fi ne ci yooyu lañ koy liggéey fi ne am na ñoo xam ne tey ña nga fañ nekk waaye mën ngaa nekk fi nga nekk di leen jariñ ci saayir ak baatin te ñoom duñ ko yëg amaana bu buñ koy yëg yow yaa leen koy wax waaye ñoom duñ ko mën a yëg moo tax nit ki bu fekkente ne nii am na lu mu soxla ci ñun dañuy fexe ba xam lim soxla fexe ba xam wan yoon lañ ko mën a jaare fexe ba xam turu ndeyam turu baayam mën koo liggéeyal. mën nañoo jàpp ne daal boo am boo ñëwee daal mën na faju waaw soxla boo am daal boo bu fekkee war naa mën a faju incha allahu taala dana faju ak koor gi nga xamante ni ñu ngi ciy man ñu gis ne koor ñu bëri dañu laal yu mel nii ñu bëggoon a xam naka ngeen koy dundee bu weeru koor jotee waaw même bu weeru koor jotee dañuy continuer di def li ñu doon def ndax euh, li ñuy def lépp rek ñu ngi ko teg ci yoon ñu ngi ko teg siraatal mustaqim ndax fi mu nii boo xoolee weeru koor sax ci la ñaan di gën a dale ndax ci la ñuy jéng seytaane ci la ñuy tëj bunti sawara yi te doomu aadama bi ñetti noonu rek la am mooy e, seytaane ak bànneex ak àdduna bu weeru koor jotee ñu jéng seytaane nag léegi yow loola mën a gàllankoor rek sa bakkanu bopp la mën a doon su boobaa nag ñaan mu dal dafa yomb ñaanal nit mu dal itam dafa yomb day fekk mu set yow mi koy ñaanal nga set bu ko defee e, réseau bi day neex maanaam branchement bi day mën a nekk daal incha allah ndax léegi nii ñaan yu na yomb jamono ji comme que tëj nañ jàkkay buntu jaamukaay yàlla yu bëri dañ koo tëj jamono ji ndax bañ dajaloo bi am ngir xeex jàngoro jooju dugg ci réew mi mi coronavirus ndax ñaan mu jàpp jamono ji dina yomb. Mm. Euh, du jafe ndax fi mu ne am na sax tur yàlla yoo xam ne boo koy liggéey dañ lay wax ne la nga dem ci dëkk boo xam ne dëkku moyukaay yàlla la. am na tur yàlla yoo xam boo dañ lay wax ne la am na xalwa yoo xam boo koy dugg dañ lay wax ne la danga nga dem ci dëkk boo xam ne day am ndox benn ñaareel ba itam day doon dëkku moyukaayu yàlla ndax dëkk yooyu ñaare woo farawaxaan mu wuy la da yomb woo farawxaan mu ñu wuy la da yomb li tax mu yomb mooy suñu borom subhanahu wa fu ko kenn mus a jaamoo foofu la gën a nangoo ak jaamu yàlla boo xoolee iblis li muy bon bon bon ak mbaaxam li tax ñu bëri di ko doon ko nangu ci ay jamono ba mu doonoon sangum ñenn ci malaaka yi mooy fu doomu aadama teg tànkam rek iblis sujjóotal na fa suñu borom subhanahu wa taala moo tax jàmm yàlla wala ñaanal nit ci place boo xamante ne nii xëy na du palaasu ñaan sax moo gëna a tee mën a daal ci jamono yooyu moo tax ci jamono yooyu ni suñuy ñaan dëgg nit ñi du ñuy ñëw di dajaloo ci ñun waaye danañuy ñaan muy fekki doomu aadama yi fañ fañ nekk incha allah. Hmm. sëñ Moussa ñu ngi lay jaajëfal di la bàyyi rek nga daal di tàggoog mbokku internet yi. Ah, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan suñu borom subhaana Sénégal mu def fii jàmm ndaxte ci jàmm ci la ci la lépp xaj ndax boo demee ñetti weer ci ginnaaw wala ñaari weer ci ginnaaw ku waxoon ne danañ dem benn bis boo xam ne avion yëpp danañ taxaw bato yëpp taxaw oto yëpp taxaw njiiture yëpp fatu euh, mboolem ñu doon yaakaar ci ay wàll faju suñ borom taxaw di bàkku di wax ne anal waahidul qahaar kon lii mooy misaalum lële di waaj a ñëw mooy ëllëg yowmal xiyaam bu suñ borom reyee jaam ñëpp bay bàkku ñeent fukki atam yooyu te kenn du yëngatu yaakaar naa ci jamono ji rek loolu tàmbali naa misaalu ndax yaakaaroon nañ ne am na indi ñoom ne tëlewuñ dara léegi nag wane na ne tubaab yi li ñuy man man man tële nañ ci jàngoro ji kon am na yeneen jàngoro yoo xam ne tële nañ ci muy jàngoroy xol kon nañ fexe ba laabal xol yi yénente jàmm fexe itam ba bu ñu yénentee jàmm ci la développement mën a amee ndax boo xoolee tubaab yi li ñu roy mooy yàlla da leen fay fay ñu rek muy seen yénente jàmm loolu leen yàlla fay ñun suñ ñàkk yénente jàmm loolu lañu yàlla fay loolu nag nit ñi nanguñ koo dégg waaye loolu mooy li am boo xoolee sunu sunu sunu sunu wuutee da ngay gis ne ñoom ñu ngi nekk ci dund boo xam ne dund bu dal la maanaam ñun sax bu ñu bëggee dund dal dañuy gàddaay suñuy dëkk dem ci seeni i dëkk ngir dund fa fi mu ne nag coronavirus dikk na wane na ne ku bëgg ku feebar sa hôpital ngay fajoo principal fi mu ne lu mu bon bon bon bon loo am am alal fa ngay fajoo ñu la mënta faj da ngay faatu fi mu ne ku doon jàng tey ci am réew jël nañ la indi la ci am réew ngay àggale sam jàng kon léegi li ñuy misaal foofu rek mooy ku nekk na nga defar fa nga nekk boo ko defaree rek bu ku nekk fatoo nga am loo fatuwaale ndax ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fu borom mu toog ñu ngi sant di gërëm ñëpp asalaamaaleykum waaw adresse bi moom mu ngi Touba Darou Salaam fi lañ nekk ku ñu fekk incha allah yàlla mën a dogal ñu faj say aajo ndaxte dëkk bi dëkk bu am yaakaar la ndax moom la suñu Tuubaa njëkk am ci dëkk mooy dëkk bi nga xam ne moom la suñu borom nangoo ay ñaanam mu am fi suñu Moustapha ak Fàllu kon euh, képp ku ñu fekk rek am nañ yaakaar ne sa aajo daana rafajo ndax ku aajoom nër rafajo rek yaakaar naa du ñu dëgmal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dox euh, di sant maam Thierno bu baax a baax a baax di la sant yow itam numéro bi mooy 77 480 45 85 jërë ngeen jëf mbokku internet di sant ak ngërëm ñeen leen ci ànd bi ngeen àndoon na ñun ak chaîne chaîne bi di 24 actu gis ngeen sëñ ma sëñ Moussa ni mu ko waxee sànq nee na képp koo xamante ne ni am nga jafe mu ci néegu sëy maanaam ngóor a faj ngóor daf koy daal di def faj rab bi nga xamante ne ni moo sonal nit ñi lépp loo xamante ni nekk na ci nit ñi mu ngi leen di merloo ñi mu leen di téeri ñu am doom dégg ngeen sànq ni mu ko waxee noonu ci vidéo bi moom da leen ci daal di jàppale ba ngeen mën a tàggoog boobu lay rab soriwul dara ñëw leen fekk ko fii ci Daaru Salaam mu daal di faj seen aajo nii rek lay demee saa su nekk que dox da dig daje ba beneen yoon ci seen beneen entretien